mbokk internet yi ñu ngi leen di ziar am ci mbégte contentement chaque jour du lundi au vendredi ñu yaatal li gën a fës ci actualité yi waaye aussi suñu actualité lamboo na li nga xamante ni mooy politique waaye aussi tamit people et buzz fait divers bi sport itam desul ginnaaw benn yoon ndax gis nañ li nga xamante ni moo di actualité li mu ëmb bari ba tax na da ciy baax ñu daal di koy décortiquer de telle sorte que yéen yi nga xamante ne yéen ñuy bàyyi xel à chaque jour suñu mbokk internet mbégte contentement la ñuy àndal la ñuy àndal di leen baaxee li nga xamante ni moo gën a fës tey nag actualité yi dañ koy door rek li nga xamante ne mooy journaux yi di à la une donc ñu gis li nga xamante ne moo di actualité yi ci am bari na lool politique beeg fait divers bi jéggi na dayoo dañ koy door rek suñu mbokk naataango yooyu di l'observateur alors nag lële li nga xamante ne xew na fële ca Kolda jéggi na dayoo lool ndaxte le secte Mbake Mbake. Mbakiruxu tamit la euh, la secte Mbakiruxu andi na ay polémique yu bare bare bare ci li nga xamanteni modi société bi donc ay révélation itam yu baré bare daa dina ci am ba sax ñi ñuy xamale ki nga xamanteni ni moo itam daka ray, mu don lo xamanteni nak jamono gi andi ay polémique lool tane nga euh, yonente Al Hassan Ba la Kaaba érigé au centre des villages et des rituels religieux mom mi nga xamanteni mom moom gis ci natal bi itam témoignage du maître Boukourou bataille rangée de dix ans de prison mu doon loo xamante ne ay révélation yoo xamante ne gis nañ ko waaye am na ay kilifa diine yu baree bare yu génn wax ci mbir moomee nga xamante xew na fële ci ku ci mel ni Ahmed Khalifa Niass ci kanam tuuti dinañ ko euh, wax incha allah dañuy dem itam ba fële nga xamante ne aussi tamit moo di Kër Massar donc ab mason nag moom moo daal di fekk patron moom patron wam ak ma ak rakkam ñuy daal di sëy naka ni noonu jamono gi nag ah, yoon teg na leen loxo mu doon li jéggi dayo waaye itam fële nga xamante ne ba tey rek moom moo jëm ci ab imam aussi tamit moom daal lañ daal di jàpp mu daal di yor li nga xamante ni mooy yàmbaagu bare bare fële ca Tamba ba tey accident yu baree baree rek ñu koy nemmeeku ci li nga xamante ni mooy euh, circulation bi ba tax na rek ñi ngi ñaan chauffeur yi di daw ndànk ba tey suñu tàngoor libération itam daal dinay ñëw kii di Babacar Dia un scandale sans fin mu doon koo xamante ne aussi tamit da doon yëngu fële nga xamante ne ci wàllum controleur des impôts et domaines jamono gii nag yoon dakaa teg loxo ndax dafa am loo xamante ne dañ ko koy toppee ba tax na gis nañ li nga xamante ni moo di actualité yi ak li nga xamante ne mooy réseaux sociaux yi tam ngi ciy def à la ba tey tamit la signature daal dina koy jël de Mame Boye Diao donc mu mel ne def ko dafa falsifié li nga xamante ni moo di signature bu Mame Boye eh, Diao yemu ci ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni jamono gi nag nguur mi ngi ko koy mooy de Mbour eh, ki di Bombardier daal di génn lancer un appel ki le chef ñu bëree ndax gis nañ li nga xamante ni mooy deuxième vague de corona bi dafa nar a ànd ak ay sanctions yu bare bare c'est-à-dire que bépp manifestation bu amoon dañ koy daal di dakkal ba tax na Bombardier mi ngi lancer un appel yemu ca Balla Gaye 2 itam mi ngi lancer appel na naan déet waaye bàyyi leen ma ma ngir yàlla mu doon ay kàddu yoo xamante ni jéggi na dayoo waaye naka ni démb itam moom mooy def buzz sur les réseaux sociaux Sofia moom mi nga xamante ne moo nekkoon Diassigui TV Sofia mi nga xamante ne moo amoon soi-disant émission ak ki nga xamante ne mooy Lirou Diane jamono gi nag mi ngi fële dégg nañ ci suñuy naataanga yooyu du Sunugal 24 fala nekk di lëmbal lëmbal gu am solo yemu ca nee na képp ku bëgg a gis li muy lëmbal yemu ca képp ko gis taatam ni mu toll du samay kàddu Sofia moo koy xamle askan wi nag jamono gi xamante ni mooy buzz jéggi na dayoo ndax Sénégal kenn mënta ràññee animatrice ak animateur professionnalisme kenn xamatu ko ci wàllu millier bi nag jamono gi nag moom mooy def buzz ndax gis ngeen noonu image bi ni ko kii di Ouzin Keita di jàppee weenam yi di ko xëcc gis ngeen ko nag naka ñu démb image bi ñëpp ko salteel image bi kenn rafet rafetluwu ko Sénégal ndaxte li ñuy wax saa sune jigéen dafa ànd ak valeur jigéen dafa ànd ak cër jigéen dafa ànd ak respect waaye li nga xamante ne gis nañ ko jéggi na dayoo lool Sofia nag ci boppam mu ngi mel ni buzz Dakar def succès lool ba tax na nee na mi ngi jox képp koo xamante ne rendez-vous fu la ci Sunugal 24 ak xeetu lëmbalam Ngone nduur nag daal def ab cri de cœur gu mer waaye itam yemu ca mer na bu futt nee na li nga xamante ne nag moom mooy ñoom seen milieu bi nañu leen bàyyi ñu liggéey du ñu toog benn yoon te liggéeyuñu ñoom artistes yi jeeta waaye nee na alxamis bi bu 17h jotee wala bu 15h jotee fële ca place de l'obélisque dinañ fa amal benn marché gu am solo goo xamante ne képp kuy téye micro képp kuy woy képp kuy artist na la fa fekk bu ko defee ñoom ñu waxtaanee li nga xamante ne moo xew ci réew mi ndaxte kat sonn nañ. dañuy dem ba États-Unis Pape Mbaye itam daa nay def aw show bu am solo ci benn soirée bu fa amoon soirée peur nag ngi koy fecc feccum pël 100 pour traditionnel gis ngeen noonu Pape Mbaye en action ak feccam yooyu mu euh, mu doon loo xamante ne jéggi na dayo lool ni ma leen ko doon waxee sànq rek te libre révélation secte mbarexu euh, mbakiruxu boobu mi ngi noonu donc nee na ab bal nag moo daa moo ab bal lañ ko daal di rayee euh, ci ki nga xamante ni mooy doomam moo def ñaawteef googu ci jour tabaski donc ay révélation yoo xamante ne andi na ko na dayo lol waaye ki nga eh, eh, Ahmed Khalifa Niass dal dina ci génn wax ci wax ju am solo ci lolé nga mo eh, sur le nouveau secte Sabel a a toute complicité ak ki nga xamante moy la rapport Paco brisa. alors jamono gi nak ni ñi ñi ngi naan ñom ñaar dañuy ou pas ñom ñaar qu'est-ce qu'il Euh, qu'est-ce qu'il prépare mu doon loo xamante ne am na solo lool waaye nañu taaxee lu xool rek ki nga xamante ne mooy Sabel ak Paco Brice lan la ñuy waajal alors troisième mandat Macky Sall le 13 euh, Faye nag gannaaw mu nekkoon ganu Aïssatou Diop Fall alors li mu wax lenn la nag troisième mandat bi nee na Idi devant Macky Sall jog di ko tax jog jug di ko tàccu ndax mu ne su sañoon Macky Sall toogaat fii ay kàddu Thérèse Faye Diouf moo koy xamle c'est-à-dire ci gàttal bu sañoon Macky Sall def li nga xamante ni moo di troisième mandat l'animatrice Mati Cartel itam doonoon fi koo xamante ne ku ñu ràññee ci télévision Futur Média jamono gi mi ngi fële ca New York daal ne accouché ab tout tànk bu góor ñu koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ay décembre itam daal dinay ñëw ci li nga xamante ni moo xewoon fële ca New York bu soirée Mo géej bi yemu ca def ay révélation yu am solo bu ko doon may un milliard du sëgg du ko for waaye itam du baleel moo géet ndax gis nañ li nga xamante ne moo géet mi ngi fa doon maye xaalis bi jégg na dayoon lool ba ku nekk di ci sànni sa grain de sel waaye ay décembre li ma xamle lenn rek la nee na moom buñ ko doon may ay millions du sëgg di bale xaalis te amul sax numéro tiité lii moo gënoon fës ci actualité yi gis ngeen saa su ne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

mais jàmm. loo wax ci Dakar instant. Dakar instant a Dakar instant. Dakar instant yéen a ngi instantané. boo moom laay seetaan. boo tëddee. moom laay seetaan. booy Twitter. Dakar instant. Dakar à tout instant. maanaam ñu ngi koy ñu ngi baaxal ba mu baax. astuce. Dakar instant di leen bëggee rek.